mbirum faru rab dafa bëri lool ci jamono faru rab nag mooy àndandoo eh, d'abord eh, góor dana koy am jigéen dana koy am bu dee góor la ñu ni coro rab la am bu dee jigéen la ñu ni faru rab la am mu nekk eh, amaa rab maanaam yàlla dafa bind doomu aadama bu nekk mu am àndandoo yonent ba mu kañ ko ko waxee mu ne ñu ne ko ndax xattaa mu ne xattaa man mii am naa àndandoo waaye yàlla dafa maa dimbali sama bës duma du ma digal lu muy lu baax kon donc euh, ci yaatal rab dafay ànd nit ki tout le temps faru rab nag euh, mu mel ni euh, bu dee tey nit nit la woon dañ naan benn xale bu góor bu gis benn xale bu jigéen mu daal di koy topp bëgg ko baatu far yaakaar naa wolof la léegi nag ñu doon ko séentu ci nit far mu nekk rab loolee nag bari ci nit ñi lool nga xam ni lim mën a yàqal doomu aadama bi bari na bu fekkee jigéen bi la d'abord ñëw ci ku jigéen ki ku jigéen ki am faru rab moom mën na am signe yoo xam ni saa yu ko gisee ci moom mën nañ wax ni kii dafa am faru rab su ko defee bokk na ci signe yooyu eh, ndaw si bu fekkente ni mi ngi bëggante ak nit loole buy dégg nit kooku lu bari wala mu koy gis lu bari xolam mën na di tàng xol bi day yombu tàng wala léeg-léeg mu melni koku daf ko def dara wala bu gisse mel ni gis ay butitam wa illa mën na dem am ak nit ki relation ba nga xamni yaaka yaakaar na deuguer na jek jek du gis koku lolé ay signe la yo xamni faru rabbi dana koy def bëri na ko xamni tay jigen bo xamni tay eh, faru rab mo la yakal nga am eh, li di borom keur même sax mën na la bayyi ba nga am borom keur mais sëy ba du neex bu la soree moom ku góor ki sa xel di ne ci moom waaye or bu la jegee rek dafa mel ni sa butit ngay gis te or ko wala nga def benn affaire ba pare loo xam ne danga ko defee ci mitit wax lu bon wala def lu ñaaw ay quelques minutes rek wala loolu paase rek nga daal di koy riccu daal di rus beneen signe bi nga xam ni nit ki bu ko amee xam ne am na faru rab mooy muy gént di sëyëg faru rabam day ñëw di sàkku ndaw si di sëyëg moom même sax dana dem ba ci ki am borom kër te am faru rab borom kër mën naa sëyëg moom ba pare te moom bu sentir ni borom këram sëy ak moom lii yëpp mbokk yi ay signe la yoo xam ni eh, signe faru rab la Euh, beneen bi mooy euh, faru rab nit ki bu ko amee mën na ko yàqal am doom ci signe yi la xam ni day tuur ëmb ndax ndox moomu mu koy bàyyee euh, buy séeg moom ci gént ndox moomu baaxul kon am na koo xam ni tey li ko tee li tax muy yàqu yàqule ci ëmb loole faru rab bi moo koy def kon signes yi nga xam ni moom mooy signe ñu faru rab bëri na ci jamono ji lool waaye itam képp ku gis benn signe ci signes yi xamal ni yow moomee da nga am faru rab léegi nag mu des faru rab boobu boo demee ba gis signes yooyu lan la la mën a yàqal boo boo boo boo xoolee wax nañ ko ci signes yi lim la mën a yàqal mooy bu dee jigéen la mën na laa tey am borom kër wala boo forcé ba am borom kër mën na laa tey am doom ndax abortement yu bëri fa rab moo koy def mën na laa tee nga dund dund bu baax dund bu neex parce que soxol day dëkkee di tàng bon mënoo jëflante ki nga nekkal su ko defee sëy ba dootul neex kon far rab mën naa nëxal sëy ba nga xam ni du baax kon ki nga xam ni amagul am na effet yi muy def ci moom ki nga xam ne amagul borom kër waaye itam ki nga xam ni am na borom kër mën naa def ay effet ci moom ci digganteem moom ak borom këram waaye itam ci digganteem ak wàllu amam doom jërëjëf euh, Adama borom faru rab yi ki nga xam ne yàlla may na ko xam-xam ci mbiru rab waaye bu ñu jógee ci loolu am na mbokk yu laajaat laaj bu am solo ji laaj ñu bari leen ne boo amee faru rab sa wërsëg day tëju loo yaakaar doo ko jot daanaka daal doo bari koom-koom lool ndax loolu faru rab da koy def wala. waaw loolu faru rab ci boppam li mën a yàqal nit dafa bëri loolu ci la. waaye loolu itam li ci ëpp cet dana koy def xëy na bis dana ñëw yàlla mën nañ cee tombe ñu wax ci waaye lu ci mënta xew eh, rab li mu yàqal nit dafa bëri dafa bëri lool lool lool lool te foofu ñoom sax dañu am ay façon nit dana am faru rab ba mu bàyyi ko bu mu am doom mu koy imposer pour mu rey doomam te da koy imposer pour mu rey doomam ñëw ne la xojal sa doom bi pour nga rey ko am na ñoo xam dañ lay feeñu jëxëratan ñëw ci yow toog ak yow tëdd yow nii tëdd sa wet mais yow rek yaa koy gis lim la mën a yàqal bëri na parce que dañ lay topp foo mën a dem dañ lay fooy fooy dem mën nga tey comme li nga wax noonu mën nga tey dem di doxi benn soxla boo xam ni soxla bii su ma ko doxee mën naa ci am fukki junni mais ñu gàllankoor soxla ba soit ci kan koy defee wala ci yow mi kon donk Eh, lim mën a yàqal doomu aadama bi bëri na bu dee ko góor ki aussi eh, tamit noonu ki góor ki nga xam ne dafa am cororab néew na nga yore soxna sa kër gis xale bu tuuti diw takk na fase na takk na fase na wala sax diw moom day wax dëgg yàlla boobu ba léegi mi ngi ngoro mais pour mu sotti day doy waar. Mhm. fekk cororab bi la moo ko topp di ko yàqal ñooñee. comme yow danga nga fàcc mbir boobu. yaa ngi fii ci Dagg Ndiayène nekk commune bu Notto mhm. nekk ci yoonu Pambal waaw mbooloo mi fi ñëw di la seet si ci mbiru rab ndax tey da nga ubbi say buntu ba képp ku la soxla rek euh, mën laa jot ba mën a dëgganteeg yow ba aajam ko ko fajo ak nan lay rek ba mën laa jot waaw loolu de euh, buñ paree ñu joxe benn numéro boo xam ni képp koo xam ni bëgg nga fee ñëw soo ñu woowee daañu la jox bisu ba nga ñëw fi wala ci samdi incha allah ñaar bis yooyu boo fi ñëw daañu fekk boo ñu oowee wala nga bàyyil ñu message whatsapp ci kàttanu yàlla bu ñu yàlla dimbalee e, bu bëree ba bëri une semaine yow ak Far Rab ngeen tàggoo ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala kon donc e, bunt yi ubbeeku na pour loolu e, pare naa pour recevoir képp koo xam ni loolu moo la sonal waaye itam ñu ci ci kàttanu yàlla